Kalifon Sall Fouta Tampi yéen ñëpp di leen bu baax. di leen bëggee. Euh, donc oh. seetaan naa live bi ba mu jeex mais ñaari kàddu laa ciy sànni rek yoo xamante nii waaw benn bi dama koy jëmale ki nga xamante si nii moom mooy Kalifon Sall bala maa ñëw ci ñenn mi parce que Kalifon yow ku la gis day foog ni nit ku muus nga maanaam nit ku am xel nga maanaam ku intelligent nga ku xam àdduna nit ku baax nga nag mais sa muus ak sa intelligent ak sa am xel dafa des lu bëri parce que boo toogee jàkkaarloog nante bu mel ne Cheikh Ahmed Cissé Cheikh Ahmed Cissé nante sëriñu nante yëpp di taxaw di wax a yow di dugg ak yow ci ay pièces Amadou Ba ñaata la la fay foo jëlee xaalis bi nangam nangam fan la jaar nga ubbi sa gémmiñ naan jaarale naa fii Fouta Tampi jaarale naa fii Bouclier. jaarale naa fii xaadim kii jox na la temps jii jox na la temps foogoon naa loolu waroon naa des ci seen diggante yéen ak Fouta Tampi ak bouclier ak xaadim mais du woon na yow yaa waroon na yëkkati ay kàddu toog fii naan defal nga lii Fouta Tampi yóbbu nga xaadim fee ba pare yow kilifa yi nga doon jëflante sax da leen a weer tey ñu ci mel ne Farba ñu ci mel ne ñeneen ñeneen bu àdduna doon tey du jëflante yow di la jox xaalis man boo gisee sama diggante amee siise man Macky Sall rek laa bëgg. président ki Sall rek moo a ñor sama àdduna ñëpp ko xam ku dul Macky Sall faale wu ma la mais xam nga lan moo tax nit mënu maa waxal dara comme ci nii du ma ci dugal aw ma intermédiaire ci aw ma man direct laay communiquer aw ma intermédiaire ci kenn su ma demoon bay wax ak Marème fay Sall maay wax ak moom man personne su ma demoon bay wax ak Amadou Sall man en personne lay doon su ma demoon bay wax ak président Macky Sall man en personne aw ma intermédiaire man nit du jaar ci nit. naan nii ak nii man dundeewu ma noonu mais def naa demaa bi yëpp fi mu egg nii yëpp Khalifa Sall moom moo ko fa yóbbu parce que Fouta Tamp mii li nga séq moom nan bàyyi ay affaire casino yooyu kooku sam la bu ko neexee sax mu ëmb dus ba dugal ko fa foofu yoru kenn nekk fi mais fi may waxee mooy li ngeen séq ci li nga ko yóbbu ak fi nga ko jaarale mënoon naa ñàkk ci live bi Khadim Gaynde Maki li ngeen séq ak fi ngeen jaar waroon naa mën a ñàkk. bouclier tamit di nit ku baax waroon naa mën a ñàkk parce que ba ngeen koy def yéen la woon sutur la woon yéen ci doon seen am seen xaalis ñoom génn ñu wax yow waroo génn demaa dina la cuq ba ngay wax loo xam ne waroo koo wax kilifa yi dina la xeeb ay nit dinañ la xeeb te ñoom da nga leen tuutal saltel seen image même bu fekkee sax demewul noonu man bu doon man la du ma ko def président Macky Sall laa bëgg xoolal Macky Sall laa àndal tey ànd ak moom guddi ànd ak njabootu Macky Sall bëgg leen lool. mais àdduna du yàgg man ba ma wax li may jëflante kilifa yi meeg seq naa ko ñoom sax du ma wax lenn loo xamante ni dana fausser débat barke Serigne Babacar Si te yow xamante leen bu baax yàgg na noo waxtaan mosoo gis fu may tooge man di wax naan waxtaan naag lii ak diw def na nale géewu politique bi nangam nee na demee mukk parce que intéressé wul nit ñi li nga leen di expliqué na yem sa diggante kilifa yi ak ñi ko seqal. ñi koy expliqué dañ lay dugal naan sàcc nga dana la ci xas dina saaga sa ndey ñoom dana saaga seen ndey ne leen da ngeen ay nit da ngeen doon wut ñu leen di saaga da ngeen a jël xaalisu réew bi te amaan na ñoom politicien lim lay jox boo liggéeyi am ko mënuñu leen a defal yéen lu ngeen mënta am dugal sa bopp la ak salteel sa image foog naa wax ji fu mu yëgg nii yëpp yow yaa ko fa eggale bu fekkente ne nag parole yi dafa am lépp loo xam ne nii dala cee métti maa ngi jéggalu mais man nii laa jàngatee débat man nag sama baat ci kaw Cheikh Ahmed Cissé aw ma intermédiaire ci diggante nit ak nit ci géew politique bi man maa la koy wax man maay communiquer directement man en personne moo tax man kenn du waxal dara. lool loolu laa ci doon sànni. léegi merci Adama boo tëjee sa micro. yaakaar nga ni wax nga nga naan way ñoom Farba Ngom ak patati par ku dul Farba Ngom sax lijjantiwuma ko man tooguma fii ne Farba Ngom ma saako yóbbu yëkkati na lii wala leneen kon yow déggoo li ma la wax de. influenceurs yi ñu jëloon comme chargé de mission. loolu lu lu lu lu loo xam ne nëbbuwul la parce que bañ ko hmm. defee danoo def cachet ministre bi signé barki démb ba ba jomaay fay jëlee ay chargé de mission ñii ñu jël ay chargé de mission sax danoo dem seen page Facebook ne merci beaucoup jomaay fay si chargé de mission bi ñu def comme ñooñu nëbbatuunu loolu lañ fi waxoon waxu chargé de mission taxawuma fii ne yóbbu naa mii si nit mu may xaalis lu dul benn Mame Boye Diao te boo gisee tey mu toog fii di wax may wax dafa am fu mu dooree kii bu doon nit njaay njaay njaay lu ma ko woonoon wax si kaw suuf sax dina ne ma sama góor nga loo wax nangu naa benn instant parce que ba muy toog fii li ko Omar yëpp dafa commencé woon live ne damay saaga Macky Sall ma ne ko damay bañ li ma dal dal la bul saaga Macky Sall parce que damay bañ ëllëg nga loolu laa ko doon bañal ma taal sama live xaaral rek. ma ne ko Kali dagguma la de. dagguma la de Kali dama naan Kali dagguma la ma rek dama jël sama temps déglu ko yéen. yëpp mais ma daanal ba nga naan gay na Macky da nga ñu jox ko may ma rek may ma rek ñu jox ko fa deux deux millions. muy yuuxu di wax bu crié jël nga cent mille waaw may ma rek. waaw jël nga sax loolu moo waroon na mënoon a ñàkk foofu laay waxee yow. bu crié nit ku baax la sa frère la. bu crié déglu li ma la wax bu crié. waaw yow maanaam yow démb moom la nga daanu. waaw waaw waaw Adama da ngay déglu. bouclier bi ngay tudd ñetti yoon audio na ma démb audio na ma tey man ku dul bouclier sax lijjanti ko man néew ma dama ko jëli yóbbu ko si benn nit mu may ko xaalis dama ne ñii ñu defoon chargé de mission moom Fouta mi bokk na si bouclier bokk na si ak ñeneenu nit loolu du lu ni nëbb parce que chargé de mission foo dem ministère tey ci Sénégal da koy def ba ci palais bi du loo xam ne furut la tey ARTP day am charge de mission ministère de la santé day am charge de mission ñaari weer 150 millions day am charge de mission ministère de sport day am charge de am charge de mission yow mosoo yow mën naa laaj ci Mame Boye ma kali yow xam nga mosoo maa yóbbu fenn ma si yow Fouta may ma ma ma ma ma ma may ma tuuti Adama may ma s'il te plaît may ma rek may ma ñëw Fouta Fouta may ma ñëw ngir yàlla may ma àggale rek jox la may ma ma may ma ma àggale rek ma àggale bi may ma Adama dafa may dama lay may billahi wala ma koy fàtte man ko moom Ahmed Cissé dalal laaj tali man maa dama may ma rek ñaata nit nga recruté dama kan yow dala doon ba nit comme xale bu ndaw dem ci ma may recruté wuñu sax recruté wuñu bu waxee ne moo ñu recruté waxul dëgg bu waxee moo ñu recruté waxul dëgg yàlla dëgg la bëgg may ma présenté kooku moom mosuma présenté kenn sama baat ni poto ki mu tudd démb bugguma koo tudd sax muy maam booy jaaw maa am man ak moom li nga xamante ne mooy audience may dem bay waaj a yegg ma seen ko ma sama mbaax man moom na ma wax moom fa la ma sa téye sama loxo ne ma kaa ñu dem fii na ma ko wax bu fekkee ma sama yóbbu fenn moom na ma ko wax fu ma si yóbbu rek na ma ko wax man ma permettre naa ko rek maay dem gis ko droité sama oto wax moom ne ko man ci diw laa moo ma woo mu ne ma ah diw dafa war may recevoir boobu ba tey recevoir ma rek ma ne ko ëpp naa def kaa ñu dem mu ne ma non non comme te woo demal ma ne ko kaa dem kaa ñu dem lu am bokk kaa ñu man may faaris man ku ma jàpp jàpp naa te yàlla tax ñu dem ma gaare sama oto mu gaare moto ñu dugg ma joxe sama tur foofu ci buntu bi ne man la. dama am ak diw rendez fu ñu ne ma duggal impôt et la woon ñu dem àndandoo impôt et domaine ñu dem dugg ba ci biir maag moom ñu dugg fu ma la fekk di wax nga dëgg kay bi ma ànd ak yow te rek tax fu ma la fekk yëkki ci kaw yëkk ba ci kaw ñu ngi dina tungóob damay toog ñu toog permanence nga ñëw ñëpp a di la xeex ñii di la xeex ci biir APR ñii duñ la bëgg a gis ñii duñ la nangu ko ngay wax parce say wax yu ñaaw yu ñu su ma la séenee rek daa dee jóg na cey su ma duggee direct ngay xulóog ngir ma ñëw jël xeex ba xuloo ba ba maam booy jaawo fee bi lay doo gor nag yaa goree di kay yow nee yow loo ma defee ma damaa war a noppi xanaa dangaa fàtte ma fàttali la léegi waaw mu neex ñu ñoo affaire aji caare bi loolu moom gën a soxal. li ngay wax may ma rek yow du nga jël taara parole du li nga ma woo na neex tey loo ci daw du ma ci daw fii nii maam booy jaaw fii nga xamante nii moo ci may mën a dul fay bi muy ñëw ñëw nga ñëw may jigéen ci biir góor ay góor bëgg xeex ak yow bëgg sasatoo ma jël xeex ba yow fu ma la fekk rek ñu lay néewal doon yëkk naa la ci kaw. bi ñu demee ci maam boo jaaw deux millions maam boo jox la un million joxaat ma un million ndakate yow nga delluwaat encore maam boo jaaw nekkaat fii a gise man dama sa bopp bi nga demee ba ma yeggee wax naa ak maam boo jaaw neen dina la wax ma fenn ma ma sa yóbbu yow sens contraire boo paree dina la tontu sa bopp yow man man yow man maa wàccoog yow yow naa la yow bëccëgal naa la yow dem ak naag yow fu ne jàpp la jàpp say mbokk nga ne yow li ma am seen kër mbokk yaa ma ko defal waxoo dëgg maa ko fa liggéey nga am nag mbokk yu faaris ay gor ay garmi ay bete ñoo xamante ne kenn du leen jam du ñu jàpp bàyyi te bu ñu jàpp bàyyi nañ ba ci démboo ñaar même pas deux sa ko kaan say fere non dañuy waxtaan non non dañuy waxtaan ay ay garmi ay bete bete moo tax ma xam leen waaye taxul ma bàyyi leen tey laa gën di dégganteeg ñoom waxtaan ak ñoom ndax xam naa la nit gore la waaye nag si ni nga mel ana say nitu démb ñi nga ànd woon démb ak barki tey maa ngi jéggoo sa sa tudd suuf bi may tudd sa koo àndal tey bu subaa koo duggal tubay tey ngeen balaa koy xaar suba. non mais juboo na léegi ñu ci jàmm juboo neen. yow amoo koo faral. yow amoo ko fa da nga mel ni jant yow boo woo kenn yow sëgg mën nga mën a sampal sëgg man nga mën a wax lu ñaaw yow keneen koo wax du safe waaye mbaa xam nga leen ah lu ma la yéene lu bon lu yàlla naa ci jiit waaye Salla Ngaye loo gis tamit muy ñëw rek di xamal ne léegi ma Kali balaa ngay ñëw s'il te plaît dama la bëgg a laaj. Fouta. oui. moom dina ñëw ci mbiru Adja Thiaré mais dafa am lu ci des en tant que man mi contrôler débat yow danga wax ne dafa am ñoo àndal falsifié bilan médicalu Adja Thiaré moo tax Kaliphone tëddul ci kaso. ma lay laaj. dafa am ñu dama wax dafa am ñu ñu waxal ñu ko def. waaw wax bi mooy ànd xam nga fu mu nekk nii yow Kaliphone boroom kër la kilifa la munoo ñëw ci askan wi tuumaal ko loo xam ne indiwoo ci leeral. léegi ma maa ngi ñëw question laay laajte de. léegi li may laajte yow li nga ne da nga dafa am ñoo waxal ba ñu falsifier euh, bilan médical bi rapport médical bi pour Kaliphone dul kaso rapport boobu da ngeen falsifier euh, ba Adja Thiaré baaraam daf ci duggoon wala affaire wala lan ngeen falsifié foofu leeru dama bëgg mu leer. lan ngeen ñi nga waxal ñi nga waxal lan nga wax ak ñoom. lu may wax nag moom dama koo xam dama ne la. loolu. dañoo nekk moom dafa vierge Adja Thiar mosta vierge laa wax. waaw boobu maanaam ndax oh. vierge boobu ne moom maanaam maanaam yéen da kon yow am moom xam na man xam naa. non moom xamul parce que boobu den ko jàpp moom xamu ci dara yow yaa xam léegi yow laay laaj te yow yaa wax léegi kon. li ngeen falsifié mooy da ngeen wan ne Adja Thiary vierge la loolu rek ngeen falsifié pour mu tëj euh, anta attendant yooyu yëpp ngeen toppee ko court et blessé yow loolu nga wax ak ay ngeen falsifié ko leer na kali ñëwal euh, man wax yëpp ay Mame Boye Diao yi du ma intéressé sax affaire Adja Thiary bi moo ma intéressé te sénégalais dinañ seetaan Adja Thiary am na avocat yaayam mu ngi Sénégal te lii mën nañ ko koppati ñëw woo ko pour mu wane ban docteur moo falsifié bu ko defee procureur bu bees bi daal di si ubbi enquête ñu daal di jàpp docteur boobu parce que bu ko defalee Kaliphone ëllëg mën na ko defaral Mamadou wala Pathé commandant bi nekkoon foofu tamit gis ne dossier bi dañ ko falsifié commandant boobu tamit procureur bu bees bi wala président de la république Sonko ak njabootam ñu ngi seetaan commandant bi suuf sele kay moom suuf dara dëgg la bëgg balaa dañuy wax te teel a tax balaa li nga xamante ne mooy lii bi résultat bi di génn yow xamoon nga dina ci résultat bi man xamoon naa dina ci résultat bi ndax waxtaanee nañ ko waaw wala dégg. dama lay laaj avant résultat bi di génn maa ngi yow waxtaanee wuñu lu ne ci résultat yow xamoo lu ne ci résultat bi man xamoo lu ne ci résultat bi. Ahmed Cissé Ahmed Cissé maa moom temps de parole mais na waat rek si baqanu yaayam ba tëdd si àllaaxira mu wax ma ndax moom xamoon na lu nekk si résultat ak man à part lu mu jékki-jékki mu ne ma gis na gendarme bi nee na affaire bi lépp naa à part loolu na wax rek diggante yaayam bi nekk sa bàmmeel. parce que eh, sama yaay génne ko ci. sama génne sama yaay seet waaw wuy ma rek dëggu ma wuy ma non non. du ma la waat loo sëriñ dama bëgg li nga wax nii nga waat ko si sama. dañuy waxtaan Sénégal yëpp di mu seetaan. non non Fouta déglu rek. man maa moom la sama yaay moom sama yaay. Ahmed Cissé Ahmed Cissé Ahmed Cissé Ahmed Cissé tëjal micro tëjal micro tëj naa ko ma ko waatloo si sëriñ parce que mën na waat si sëriñ pour fala fala waat na si sëñ noo xaar rek waat na si sëñ Babacar ne xam na daga fekk Ousmane Sonko teppi na tuunam ku waat si sëñ Babacar di fen nag kon loolu dam lay waat di ba xam naa ni bëgg na yaayam te yaayam gaañu na moo tax li mu wax nii dama bëgg rek mu ne ak sama bàmmeelu yaay li may wax dëgg la lool kese laa ko laaj man loolu kese laa ma ko leneen barki yonent bi. loolu kese waaw léegi kale xaara léegi kale xaara yaa ngi may dégg. yaa maa ngi lay dégg. waaw kon na ubbi nga micro. Kaliphone mu ne. waaw waaye may ma rek. Hmm, yaay la wax may ma rek may ma rek. wax may ma sama bàmmeelu ndey yal naa gën a yées xeetu Seydina Mohamed bu fekkee moom xamul man xaw ma yal naa gën a torox firaaw na. avant di nga xamante ne avant di nga xamante ne dossier bi xamul wala xaw ma de waxuma loolu de wax dafay leer. maa yow dafa ni bu dee dafa ni. dama ne maa yow ne mooy dossier bi dañ ko dama bëgg waat bi nay leer de. bu mu nee. bu fekkee yaa bëgg Ahmed Cissé Ahmed moom temps parole je pense bien. waaw dama lay laaj dama da ngay tëj sa micro. Sénégalais di déglu li may wax. tëj na micro. Ahmed Cissé. Mhm. yow sa jëmm bopp. Mhm. mën nga waat nii si devant treize mille sénégalais. te barki alxuraanul karim yaakaar naa ne doo fi wax loo xamante ni pour fen la gëm naa la. ba ñu demee gendarmerie. gendarme yi daa xale bu jigéen bi demal nga defi ji li nga xamante ni mooy médical pour ñu xam ne am na wala amut mane gendre gendarme na dem ba ñu taxawee si buntu ma bi sa digganteeg sa borom newoo ma Kaliphone xaaral ma jéem a négocier xale yi parce que xam naa seen famille ma ne la santuma la nga négocier kenn nga ne ma Kaliphone boo négocier ñoom ñu dem si docteur boo xamante ni mën na ñëw ne. da ngaa tëdde xale bi ma ne la buñ ko defee ma def contre expertise Ahmed bul ñaan kenn sa diggante sa borom ci buntu gendarmerie bi wax naa la lii wala wax ma la lii. wax nga ma ko boori cinq heures du matin. ma ne la ñaanu ma njëkk. waaw. nanu dem defi ji médical pour xool tëddee naa ko wala tëddum parce que boobu j'étais rassuré parce que bu ma rassuré wuloon dinaa leen Ahmed ñaanal ma njekk waaw wa ñii doful xam nañu Kaliphone bu bu defoon nga ñëw proposé ne Kaliphone bàyyil ma ñaan ñii njekk dinaa leen ew eh waay ñaanal njekk parce que xam na ku violé lan ñaata at dix ans quinze ans la si nar fekk te yow sa non non non man man continue man li may wax sénégalais yi ñooy dégg man dama bëgg sénégalais jël témoin tey jii bu kalifon xamoon na violé na man maa dem wooy ji gendarmerie maa dox sama tànk ma dem wooy ji gendarmerie balaa may wooy ji gendarmerie Ahmed Cissé si boppam ba mu ñëwee si oto bi famille boobu danoo ne du ñu dem police du ñu dem gendarmerie Ahmed Cissé ne day dawal oto bi pour ñu dem gendarmerie ma ne ko Ahmed dawalal ñu dem gendarmerie ñoom ñu ne du ñu dem gendarmerie ma bàyyi Ahmed Cissé ak njaboot gi ma doxal sama tànk ay kilomètre kilomètre dem ba si gendarmerie ne gendarme mu ne ma naam ma ne ko ñëw leen ngeen dimbali ma dafa am problème bu am fële bu doon man xam naa leer na ma leer yàlla violé naa est-ce que dinaa ne Ahmed Cissé yóbbul oto bi gendarmerie est-ce que bu leeroon leer yàlla violé na est-ce que man dina doxal sama tànk dem wooyu ji gendarmerie kon du ma ko def ba ñu ñëwee gendarmerie tamit ba mu ñëwee mu ne leen soxna si kaay la ñu dem brigade ñoom toog nañu foofu une heure de ñu ne demuñu Ahmed Cissé mën na seede waxal si loolu maa ngi lay déglu. man suma diggante ak yàlla maa ngi fa woon depuis ci coow li ci oto bi ma ñëw ma xàcc la ma ne la bàyyi lii neen waxtaan parce que bu siwee mën na nekk problème nga ne ma awma lu may waxtaan na ma jox suma caabi damay dem ma dugg ñëw di wax ak yaay ji. ak Adja ci boppam Adja Thiaré di jooy di dóor nit ñi fi taxaw nga ñu bàyyi nga dem indi benn gendarme gendarme bi moo woote beneen oto gendarmerie ñun ñu dawal dugalante ci biir ñu dem bi ñu eggee dugg ci biir Adja waxut viol yi yaayam moo ne viol Adja mu ne ko déedéet elle m'a il m'a pas violé c'est c'est tout attouchement loolu la wax ci français dégguma français waaye fajar la yàlla jaa ngi taw Adja Caare mu ne yow violewuloo ko billaahi wallaahi tallaahi suma kanam maa ngi taxaw ci ginnaaw yow yaa ngi taxaw yaay Adja Caare ak benn gendarme képp ñoo nekkoon foofu Adja mu ne non maman il m'a pas violé c'est attouchement yaayam mu ne daf ko doon violer ma bi ne dem leen ngeen dem defi test léegi ñu ne yow dangay xaar man ma oola ci biti suma benn rakk bu tudd Assane Yadd ak suma beneen rakk bu tudd Moussa Cissé mu ngi Philadelphie fii ci amerig ma ne la kali neen négocier ñu waxtaan lii jeex ndax bu jeexul coow mun naa jóg foo xam ne problème da ci am wala ñu yóbbu ko ci docteur bu la bañ mu ne da nga koo violé nga ne ma ragaluma loolu suñ ko defee man xam naa ne violé wu ma ko te suñ ko defee dinaa woote contre expertise ñu xam ne violé wu ko loolu fen lay doon lii moom suma diggante ak yàlla am na maa ko fekkee. jërëjëf léegi sa continue yaakaar naa ne bu ma violé woon wala ñu attoussé nit di ma woo xaaral ñu woo si njëkk dinaa doon ànd ak nit kooku si njëkk. bu ma violé woon wala ma def li nga xamante ni xam naa hôpital lay mujj Ahmed Cissé ba mu ñëwee foofu dinaa coow ba jéem a rëcc daw parce que oto bi sama oto la woon mais du mu leen bàyyi Ahmed Cissé ak yaayu xale bi man ma dox ak sama tànk te jamono jooju mu ngi doon taw ma dem ba fekk ji ay gendarme fu nu monté wetu kër Cheikh Béthio Thioune ànd ak gendarme bi dem yaakaar naa ni magum jëmm laa am naa lu nekk ci viol kon encore une fois dama ma si dem ba sës tamit ba ñu andi kayit bi wax na ko sànq mu ne kayit bi dañ ko sële kayit boo xam ne dafa jóge ci docteur motard gendarmerie moo ko andi ñu ñëw jox ko commandant moom nan la mën a xamee lu ñu falsifié ban naa ni yëgoon naa ni da nga falsifié yow yegoon nga dañ falsifié léegi falsifie am na léegi moom na woo presse bi mu wax falsifié bi kan moo ko def mu tudd tur bu ko defee procureur ubbi enquête bu bees je défie tout le monde bu ko defee docteur bi euh, euh, defoon loolu dañ ko war a dàq foofu parce que docteur benn Kaliphone warul violer jigéen wala attoucher jigéen docteur bi ñëw bëgg luy neex Kaliphone wala mbokki Kaliphone muy ñëw di defar li nga xamante ni plaisir la pour Kaliphone loolu du dëgg du yoon moo tax tey live bi day am solo man nit mënu ma sosal encore une fois nit mënu ma sosal barki yonent yàlla Muhammad billahi wallahi wataalaahi bu fekkente ni loolu muy wax am na yàlla bu ma gisante ci yonent yàlla Muhammad dara jarul ngay sosal gor parce que man ba léegi sosaluma la dama la wax waxu fasino sosaluma la yaa ngi doon dem fasino loolu di waxtaan rek man sosaluma la man man man man man man man man laajal man dama lay laaj. Eh, bu seegi nii sa copain. nga la Adamo gis naa sa patron Wally léegi léegi. Ahmed Cissé. mais Cissé Ahmed. Moussa <laughs> Ketchup. en tout cas dinaa leen wax benn affaire. bu ñëwaat Sénégal de passeport américain lay àndal. ñi ko ñi ko ñi ko doon yéene lu bon lépp yërëm naa leen. barki Serigne Touba. Bouse ana ana Bouse ana Papa Diouf. non waali laa gis waaye yow bu sant nuyu woo ma man. waa ana Papa Diouf laa wax. Papa Diouf mi ngi ne ci hôtel ma Badara Gadiaga ñoo nekk ngeen a fële. dinaa la di Ahmed la paas. waaw nuyul ma ko. bu dee ci ah? hôtel bi. bu tax nuyu woo ma. Fouta Tampi xaaral yow nuyu entier laa lay nuyu. kon baax na. ndax yow séeri Fadam nga. waaw loolu la yàlla dogal waaye wuyu ma maa xamoon ne xale yaa ngi toogul amul fenn. Kaliphone Sénégal Sénégal yenn saay Sénégal yenn saay dañuy yaakaar dañ laa yàqal fekk dañ laa defaral. waaw ah, loolu la ñu xamut yàlla yàq nit. Cheikh Ahmed Cissé eh, buuse ñu kontaan na affaire bi nice na dinañ déggoo après. bàyyi bàyyi ma damay wax man lii laa am ci yow. bàyyi yow waxal lu la dee waaye man lii laay wax. bàyyi bàyyi bàyyi bàyyi buuse maanaam buy ñëwaat Sénégal passeport américain lay am. xoolal ah, lamb bi moom. Eh, Adama Viviane gi ne la Viviane Viviane gi ne moom laay xaar ci gab bi la dugg ne waaw baax na. milliards yi ne rek. waaw waaw gab bi kay moom nii fa ma. nii fa ma milliards yi ne lay dugg. kenn moom waaw dama yaay la. bu baax a ñëw Ahmed Cissé. Fouta Tampi. waaw dama ne kenn bi Fadam mi ngi mu def. bàyyam yaa ngi yàq live bu neex buuse lii day tax. non non loolu sama yoon ñëw ah, ah c' man damaa romb rek c' est lii lii at ba at laa koy am ci yéen. waaw. romb c' est yow chaque jour nga live du baax chaque jour xanaa mu ne waa may lii. mais fi nga duggee moo baaxul dañ nekkoon ci camp naas. fan ngeen ne woon. non ñu ngi doon continuer yaa ngi yàq hors sujet. mais ko yàquma hors sujet Kaliphone bu ñëwee dina ko régler. mais nag Cheikh bi. Cheikh bi il faut nga Cheikh bi il faut nga laaj Kali il faut nga laaj Kali ndax takk na Adja Thiaré wala déet. loolu fi ay bon na. damay laajte ni de ak importance waaye xam nga yow pour pour delloowaat bi pour delloowaat débat bi beneen côté man dama lay laaj dafa am lu ma la bëgg a laaj xanaa nga war a mën a def après nga continuer maa man bañ naa ko booy wax du ma la dama lay bàyyi nga jël sa temps. maa lay dëgg. te man seen amee si sa moo tax ma dama lay ma ne. bi ñu nekkee woon gendarmerie Ouakam te may ba sama am ñu ma fa xam ñu jox ñu beneen néeg ba ma toog fa ma dem toog fa ak yow jour boobu kan lan lañ doon wax ak kan lañu waxoon lañu woo pour affaire yi ba ma woowaat la man la am na ku ma woo boo boo mënee leeral nga leeral parce que loolu def na léegi deux ans lu teg boo nee kan lañ doon woo sa problème mën nga koo fàtte. bu doon bu doon am na kuñ ci woo Ahmed Cissé bu doon am na kuñ ci woo Kaliphone du tëdd kaso. ma si ay débat yoo xam ne nit dañuy sos parce que man ba léegi soxaluma ko dara est-ce que yaa ngi dégg. bu ma ñëwoon si caba doomam bi nga xam ne jamono ji caabi da ko féete ginnaaw ak yeneen ak yeneen day di xóot non non xaaral caabi bu ko féete ginnaaw ko fi am nga am nga lu ko njëkkeewul ko xam nga yow sama doom la ma jël ko sama affaire non waaw déggoo quoi bàyyi ko mu wax ginnaaw mais dama lay laaj Kaliphone sa doom bi nga tuddee Doro Gueye kuy bàyyee sama doom bi ma tuddee Doro Gueye ko fete ginnaaw ma jóg ci sunu ak farata non non jeex na jeex na loolu lépp jëru ko ma tuddee ko Doro Gueye kuy bàyyee kuy baayam day tax waaw bàyyi ji leen wax bi jamal na yaay baayam bu dee du ma baayam xëy na yaay dama lay laaj rek dama lay laaj rek laaj rek de non wax wax yi moom ci sunu ak ah, faatala ci boo demee ba ne sama doom bi ma tuddee damay laaj baayam non attends a da a génne débat bi da ngeen a génne débat bi laaj mën naa tontu xam nga bu ma tuddee caba caba sa doom la laajuma ko ba léegi kuy bàyyam parti parta amul solo. mais boo bëggee da nga laaj kay da nga maa laaj. waaw dama laa France kuy bàyyam. xam nga ne loolu waxu terre à terre la. bu ma nekkul bu ma nekkul xëy na Ahmed Cissé bàyyam. garaawul damay laajte de damay laajte rek question la Sénégal man ma nekk ak sama soxna. takk ko ëpp ñaari at. mu am moom doom ñu dem hôpital. question la. non non dafa am question yoo xam ne question rek la. non dafa am question non dafa am question. dafa am question dafa am question terre à terre. léegi kan mooy bàyyam ku dul ma. léegi kan mooy kan mooy bàyyam ku dul man. waaw daa loolu la lay laaj. non loolu jarul laaj bu mu la tuddee sa doom caba nga jékki-jékki naan sa doom français. non léegi bu ma nekk bàyyam mooy doon léegi maay baayam waaw jeex na damaa laajte rek. warul jeex xëy na boo xam ne. Ah, non c'est terre à la bul tax nit ñi di la xeeb. parce que boo toogee ne sama doom bi nekk France kan mooy bàyyam sénégalais yi gis ma koy ànd ak moom di ko wane si live ma dem joxe sama carte d'identité ak sama lépp ñu bind papa mooy kii yaayam mooy diw te ñëw sa doom kuy France kuy bàyyam loolu c'est terre am laajuma leen kuy seen ma ko kuy bàyyam loolu c'est terre à terre quoi waxu ñàkk loolu eh, eh, eh, man maa ngi nekk si leneen waaye parce que lii c'est terre à xam nga rek ay sa doom kuy baayam mais jarul ree sama doom léegi man bu ma nee maay bàyyam léegi moom na wax léegi kuy kuy kuy sama baayam doom na leen ko wax neen Fuuta Tampi yow léegi wax ñu Kaliphone doomam nekk France kuy baayam na ko wax ban nit mooy nekk France am doom ak amee doom France nu mu neexee nga ñëw ne Kaliphone nekkal sama baayu doom bi nañ ma dëgg na wax na wax mais Kaliphone bi muy judd yaa ngi Sénégal wala yaa ngi France dégguma sa doom bi muy judd yaa ngi Sénégal wala yaa ngi France sama soxna ba mu nekkee en état nekk fi deux mois trois mois laa ko fi bàyyi ñëw Sénégal ba muy juddoo nga ne bi mu juddoo maa yóbbu suma carte d'identité moo tax may laaj. non non non non soxna si hôpital bu mu juddoo foofu la day am agent de mairie ñooñu si boppam ñoo ñëw ne soxna si sa pièce papa doom boo ko yónnee par photo dañuy bind rek tur papa ak yaay avant sama doom di juddu avant muy juddu dem naa ba mairie reconnaître ne sama doom war na juddu mooy reconnaissance ñi nekk France xam nañu loolu sa soxna bu ëmbee un mois rek sa soxna bu la yëgalee ëmb yow da reconnaître ne man de reconnaître naa sama doom ëmb damay papam loolu sama vie privée kii la bëgguma mais ñi nekk France yëpp xam nañu seen soxna bu nekkee en état li ngay njëkk def mooy da ngay dem mairie nga def reconnaissance mooy yow sa soxna si ëmb na benn doom yow la bu doom bi juddijee ëllëg ci biir ñu wutal ko li nga xam ne mooy carte d'identité ñu dolli sa tur institut institut sama doom du du waxtaan bi fii li ma ko naaj rek waxu cabate xuusuma si moo tax mu bëggoon changer débat mais loolu du problème quoi te ree yaa ree Fouta Tampi Fouta yow lan moo tax nit ki nekk kilifa am doomam nga koy laaj sa doom bi nekk France kuy bàyyam pourquoi nga bàyyi ñi mu am Sénégal loo bëgg a wax ak pour lan nga wax ko loolu mais dafa bëgg a xam naa dafa bëgg wax maanaam jurul doom bi quoi. mais yow wax dëgg kuy bàyyi. damaa laaj rek. non mais Kali tamit wax ji tuuse na ko. dañuy waxtaan kese ma wax ji tuuse na ko de Kali. mais Fouta damaa laaj ci kese wax ma dara. mais Fouta. yaay waxuma waxuma de. waaw mais mais mais danga may may. lan mooy fullaay yow nga gis borom kër gu am doomam nga romb doom yi juddoo Sénégal. ñëw na ko ko juddoo France kuy bàyyam loo bëgg a wax Fouta ak lan la pourquoi cette question. dara. ok mais tontu na la mooy bàyyam kon débat clos. d'accord. jeex na léegi yaa ngi bëgg a laajte ci mbiru Adja Thiaré. da ne ànd moo dala laaj nga ne ko yow bir na la ne laalu. non man moom xam naa laalu ko moom. waa dafa nàkk rek loolu yéen la man fekkewu ma. Mhm. man fekkewu ma laalante fekkewu ma coow fekkewu ma problème man gendarmerie laa te kees kees nangu cee fay muy man mi nga xam ne moom ma problème bi mu gi di ma dégg man mi nga xam moom ma problème bi maa mën a jàpp jour yi jàpp lépp asama moom mi moom problème yi mhm. dama ne ko jour jeudi suba gi ñu nekk ci biir bureau commandant bi après bureau commandant bi ñu ñu toog fa maag moom appel yaa ngi bëri nag sama ñu ngi appel rek ñu toog fa mag moom kan la ñu woo ak lan la ñu wax te kayit yi avant muy ñëw kayit yi avant muy ñëw mu war a xëy mu war a dem ma war a xëy jëm sama kër ci guddi gi ñu wax téléphone su fekkee moom xamul woon lu ci kayit bi man xaw ma woon lu ci kayit bi yaa naa gën a torox firaawul yaar naa gën a yës si li daal sax xam nga moom nekkul. maanaam maanaam waaye déglu ma rek. non non non dañuy waxtaan maanaam su ma la déggee. Mhm. li nga wax mooy. Mhm. maanaam li nga sos parce que indiwoo benn preuve. non non bu ma ne li nga sos non non non. mais indi mhm. preuve. non non non non saa am si déedéet tout sauf ça tout sauf ça. mais wan nga preuve. non non non non bu ma ne bu ma ne dafa sos. non non waa léegi d' accord comme comme dañuy waxtaan léegi indi léegi indil ma preuve. sos man maay man maay man maay indi preuve. waaw. preuve nga bëgg. ci sa waxu bopp loolu Adja moom bu ko neexoon moom rek preuve la. xam te nekku fi nag mu ngi France. ok léegi ma wax la nag maanaam yow li nga wax mooy. li nga wax mooy. bi li xew xewee. yéen fekkee ma man maa fa nekkoon. yéen da ngeen waxtaan ak benn kilifa. pour que mu jàppale kalifon bu mu tëdd kaso. kilifa boobu moo wax ak docteur bi. docteur bi seede na Adja Thiaré dafa versé ñu tëj lettre bi indil ko gendarmerie ça veut dire que yow sa wax waxoo gendarmerie gendarmerie xamuñ ci dara mais docteur bi moom. kilifa bu waaw mu woo ngeen woo mu woo. Antoine eh, wax ma ah, ah, ah, damay laajte. ah mm, mm, mm, ngeen foofu ah déedéet Dramé Cissé non non bu ma xool neex sa live ak yooyu. mu ngay jël kon ma ko nangu de. du ma ko nangu du ma nangu ngay jël boobu fi ma ñëw mais moom ma ñëw sa la yow nag xam nga yow ak li lay arrange ngay xool man du ma du ma dugg ci yooyu ah. du sa yooyu ah. non mais ah, loolu tax war a mën a xool ñu boor xool door a gën. waaw mais moom ma ñëw. damaa te nga ah si li nga. mais ma ñëw. maanaam réaction bi nga joxe bi may bi ma tuddee Doro rek sa ça dit quelque chose. déedéet xam nga tax xam nga ma def relation da mais Doro non non da yow yaa yaa def def Doro daf ko Karim Bal Bassik tamit du ko nangu man du ma dugg sa direct bi nga naan daa ma am ndoom ma tàng Doro daa ma am ndoom ma tàng yow tax lu la neex nga bëgg yow tax nga yëg ne tey doo ko wàcc Doro da nga koy wàcc ah. sama taalibe de sama sëriñ toog yow yegg ci Doro ah. yow daa moo kenn koo war a mën a tudd lu dul dooro. bu ñu nee nii rek nga naan fëgg nga rek dem ci dooro. léegi ngeen woo benn kilifa ak beneen kilifa. waa kay mais mais yow ak kilifa kon wutu nee na xuloo ndax yéen a bokk dooro. léegi kon man laaj. léegi man li may xam dooro kenn xamul dooro. man xam naa dooro 12 ans. léegi man laaj la. ah man ah. laaj la. Ah, man laaj la kilifa danaa fekk ci dooro. man dooro Aly Ngouille Ndiaye moom par exemple moom Aly Ngouille Ndiaye mu ngi nekk ministère de l'intérieur. alors looloo yàgg. léegi ma laaj la kon man. Adama Ndiaye man mën naa yaakaar ne. su yaakaar te damay laaj man fii maa fi nekk pour laaj su ma la laajee tontu ndax mën naa yaakaar ne kilifa bi ngeen woo mu woo beneen kilifa. kilifa bi dangeen woo Doro dooro wax ak Antoine Félix Diop. maa ngi laaj mais ma ma. sànq ba tey yaa nee naa la kecc ci Doro. waaw mais Doro kenn jël ko ci. mais moom xam nga pour Doro non non mais c'est nécessaire Doro dafa Doro lu mu nekk dafa doy. Doro deful Doro mais soo ma bàyyee ba ma laaj rek pourquoi pourquoi rek non non c'est nécessaire da nga war a arrêté yow. lu tax yow lu ñu tudd rek nga tudd Doro. mais damay laajte mais moom ma laaj sama question yow une deux trois nga jëm ci Doro. waaw mais moom ma laaj sama question. mais moom ma laaj non non sànq wax nga ko man la nga génn ci Doro. nga ñëwaat encore di ko nuwaat. donc benn affaire daal si Ahmed lu bon la nga bëgg ko takkal door. benn affaire daal Cheikh Ahmed. waaw Cheikh Ahmed. waaw benn affaire daal mën naa la koo seedeel. muy lu jëm ci Interpol wàllum Interpol ak Interpol. waaw dooroo ci man Sénégal.